أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء alayhim salaatu wassalaam mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu tey mooy ñaareelu dars ci qissa daawud alayhi salaam ñoo ngi ci yonent yàlla daawud tey ñoo ngi jël ibtila wa tamxiis mooy nattu ak segg sunu borom subhanahu wa taala ni mu bindee jaamam ñi mooy balaa muy takkal kenn garaat yàlla daf koy nattu sunu borom balaa muy fay kenn daf koy liggéeyloo ñenn dong la yàlla fay te liggéey loowu leen muy saxaratu firawn ñooñ ñoo xëy di bokkaale ba ngoon jot ñu dee dugg àjjana amma ñeneen ñu dul ñoom yàlla bala mu leen di fay leen di liggéey loowu yàlla bala mu lay takkal benn grade daf lay testé daf lay nattu mu xool jàngeen aaya bi sunu borom subhanahu wa taala mu ne alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax da ngeen di yaakaar ne da ngeen di wax ne ay jullit ngeen rek ma daal di koy bàyyi mu jàll déedéet foog ma nattu leen foog ma teg leen ay coono ak ay jafe-jafe ba mu wóor ma ne yéen ñi ay jullit ngeen ma doog leen a fay loolu la sunu borom subhanahu wa taala jëfandikoo ci digganteem ak niti daawud moo tax dars bi tey nekk ibtila ak tamxiis ibtila mooy nattu tamxiis mooy segg tame segg ba mu set même bu fekkoon ne lekk la wala ndox bu ñu lay jox nga naan wala jus bu ñu jàmb bala ñu la koy jox nga naan da ngay dégg jigéen ñi ñu ne segg leen ko yàlla jaamam yi tamit da leen di segg ginnaaw bu mu leen nattoo ndeke natt bi dafay ñëw pour lan pour mu nekk segg sunu borom subhanahu wa taala préparé na taalut mu nekk buur pour mu xeex kan la kan la war a xeexal beneen buur bu tudd jaalut taalut mooy ku baax ki jaalut mooy ku bon ki jaalut ak armeem mu ne armée bi préparé génn pour préparer daje jeeg buur boobu tudd jaalut fa lamma saaral jays masafa tawila armée bi bi ñu doxee lu gudd gudd gudd gudd lu sori distance ñu daal di sentir mar ñu maranaan xam nga mbooloo bu ñu àndee ci tàngaay mbooloo mbooloo mi bari raj-rajloo bi ni ñuy kolante tàngaay bi mbóoye bi ak boole ci dox dox bu sori lan la leen jural mooy ñu mar naan fa araada taalut an yaxtabirahum fa axbarahum annahum sayamurruuna bacda qalil ala nahrin bayna ordon wa falastin ismuhu nahru sharia bu ñu doxee lu sori buur boobu yàlla booleeg ñoom mu tudd taalut nga xam ne moom moo jiite armée bi mu bëgg leen natt waxoon nañ sànq dars bi lan la lan la ñu waxoon unwaanu dars bi sànq natt ak segg buur bi bugg leen natt mu ne leen ñoo ngi waaj a jege benn dex dex baa ngi diggante ordon ak Palestine ci diggante bi la dëkk ñaari dëkk yooyu dex bi ci diggante boobu la nekk mu ne dex boobu nag dex baa ngi tudd sharia mu ne leen dex bi bu ci kenn naan xam nga loolu lañ doon wax sànq natt ku dox dox bu yàgg nga yendoo dox suba ba ngoon naaj bi tàng nga nekk ci mbooloo yaa ngi gàddu ay bagage nekk soldaar buy xeexi nga mar naan nga gis ndox ñu ne la bul naan natt mu ngo mu ne kenn ci yéen bu mu laal dex gi bu mu bu mu ci naan lu dul koo xam ne ñëw na ba ci dex gi raxas ay loxoom ba mu set daat ci as lan mooy as mooy nga tibb ci tuuti ci sa loxo daal di naan pour tooyal sa put wala nga sëlmu wala nga raxas sotti ndox sa bopp wala nga raxas say tànk yàlla tere leen dex boobu ñu naan ci lu dul ku as benn as rek daal di guux def ci gémmiñam moo tax nattu bi fii la tàmbalee ci jamono yooyu ñoom ñu doon dem ba jege dex googu seeni nombre nu ñu tolloon ak arme yi ñu yoroon nga xam ne dañoo mar dañoo xiif dañuy jihaat ci yoonu yàlla sunu borom nettali nañu ko ci suratu baqara aya 249 borom bi nee na falamma fasala taaluutu bil junud qaala inna allaha mubtaliikum bi nahrin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni ila man igtarafa ghurfatan bi yadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhum borom bi nee na ba ñu paasee jaalut ba mu doxee ak armée bi lu yàgg wax na leen ne moom jaalut moom taalut yàlla day dina leen nattu inna allaha mubtalikum bi nahr yàlla dina leen nattu benn dex bu nekk seen kanam dex la ñuy naan wala géej ah dex la ñuy naan wala géej dex lu tax géej kenn du ci naan xam nga ko très bien dafa am xorom amma dex nag amul xorom moo tax dex la leen yàlla nattoo dex la ñuy naan mooy neex moom la ñuy naan géej day am xorom di nëx yàlla dina leen a toog benn dex faman shariba minhu képp ku ci naan sëgg ci tànk naan wala nga ut pot naan ba sa biir bi na këcc mu ne leen fa lay sa min nii kooku bokkatul ci man bu yóbbu mu génn ci armée bi dem dem ñibbi parce que du xeex ku ko mosul nag ku ko laalul kooku moom man la nekkal waaye lu dul ku ci as benn as ci loxoom daat ciy naan kooku moom amul problème waaye xam nga lan mooy mbetteel yàlla mu ne fa sharibu minhu illa qalilan minhum ñu naan ci bët man di ñoom ñëpp lu dul lu néew ci ñu àndool ak toolut ñoom ñëpp a naan borom xam-xam yi nee nañ ba ñuy départ di dem armée bi nekkoon nañ samanina alf mooy juróom ñetti junni soldaar ñu naan ba mu des ñetti téeméer ak fukk ak ñett matatuñ sax junni samaniya alf lañu woon ñaata juróom ñetti junni lañu woon ñoom ñëpp genn wàll gi daal di naan ba mu des ñetti téeméer ak fukk ak ñett ay góor waaye ñooñu yàlla dafa def ñooñu ñoo nekkoon saabiriin yi al aqwiya ashujaan ñooñu ñoo nekkoon muñkat ya ñooñu ñoo nekkoon jàmbaar ya ñooñu ñoo nekkoon ñu am doole ñu ñeme ñam ñetti téeméeri ak fukk ak ñett ñeneen ñëpp ay cumbur njumbur njaay yoo xam ne dañ cee àndoon rek takk seeni jàjj yor seeni arme moo tax yàlla noonu la seggee ñëw tudd dars bi ibtila ak tamxiis ñaar la yàlla dafa segg ba pare dafa nattu ba pare daal di segg ci biir nattu bi la segg ana ñan ñoo nangu ana ñan ñoo bañ moo tax chaque jour jullit war nay bàyyi xel bu baax ci jaamu yàlla yi ko yàlla di di teg jaamu yàlla yëpp nattu la yàlla day xool ndax di nga def wala doo def di nga bàyyi wala doo bàyyi di nga dégg wala doo dégg jullil la la yàlla wax muy xool soo jullee mu xam ne yow déggal nga ko soo julliwul bàyyil la la wax soo bàyyee mu xam ne dégg nga soo bàyyiwul mu xam ne bàyyiwu moo tax chaque jour jaami yàlla yi nit ñi nañu bàyyi xel bu baax yàlla daf la ciy nattu waaye yàlla daf la ciy segg gis ngeen koor kazalik jaamu yàlla yépp la nag ñii ban jaamu yàlla leen yàlla testé mooy xeex xare ji ñu dem mar yàlla mu ne bu leen naan ci dex gi ñu dem naan ba màndi juróom ñetti junni nit lañu woon ba mu des ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett mu ne wa huna asbaha adadul jaysh qalilan jiddan fii nag lañ xamee ne nombre bi nga xam ne moo doon xeexi nekk nañ ñu ndaw a ndaw a ndaw ñu tuutee tuutee tuutee tuutee tuuti gis nga bis bu nekk bokk na ci yàlla nim nuy nattoo chaque jour su dara di xew da ngay dégg ñi amul imaan ñoom ñooy bëri waaye ñoom ñooy wax ñi amul ngëm yàlla ñoom ñooy bëri waaye ñoom ñooy wax yonent yàlla Moussa bi muy traversé géej gi bi mu ñëw ba tiim géej gi mu xool géej la mu gestu ginnaawam gis Firawna di ñëw ñi amul imaan lan lañ doon wax inna la mudrakuun danañ ñu jot danañ ñu rey tey yow Moussa bi nga xamante ne amoo doole munoo dara lu tax nga ñuy indi fii xoolal léegi géej gaa ngi nii suñu avancé lab bu ñu delloo ci ginnaaw Firawna rey ñu xam nga moom kenn la comme am na ay imaan am na yaqin mu ngi leen di wax kalla inna ma'i rabbi déedéet du ñu lab waaye Firawna du ñu mën a laal ndax yàlla mi ngi ànd ak man ñii tamit loolu moo leen dal ba ñu gisee ne naan nañ ci ndox mi genn wàll gi yépp reculé nañ deltu nañ ginnaaw am ñu ne ah tey ñu dee ndax armée bii ñu nar a dajeel dañoo bëri waaye ñenn ñi nga xam ne ñoom mooy ñi desoon mooy ñetti téeméeri yooyu Afrique ak ñett ñu yëg ne ñoom mbir mi du mbirum bari mbir mi du mbirum bariwaay mbir mi du mbirum arme moo tax chaque jour jullit yi seen arme du bëri du ba du question bëri seeni arme du question ah doole ñu bëri ci ñun dañuy yaakaar ne nit ñi fu ñu bëri foofu la dëgg nekk même ci Sénégal fii da ngay gis nit ñi tarixa yi ñuy woote yoon yi ñuy woote comme dafa bëri nit ñu ne dëgg baa ngi ne dëgg du bëri du affaire du bëri nit dëgg du doole bi fu mu nekk dëgg yi du lekk yi fu mu neexee dëgg du lan ah dëgg du lan du coow lu bari dëgg xam nga lan la mooy lu yàlla wax ak yonent même bu fekkee ne benn nit moo fa nekk moom moo nekk ci dëgg ku nekk ci dëgg doo wéet ndax yaa ngi ànd ak yàlla moo tax ñi nga xam ne ñoom dañoo amoon imaan dëgër ñu xool gis ñële bëri torop ñeneen ñi nga xam ne ay cumbur lañ comme ñi àndoon ak Moussa naan inna la mudrakun ñii tamit loolu lañ wax lan lañ wax ñu ne laa taqata lana al yawma bi jaalut wa junuudi ñun de tey ñu dee non ñii mënuñu leen a dékku ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñun mënuñu dékku ñii jamais waaye xoolal ni leen yàlla dalalee xoolal ni leen yàlla dëgëralee yàlla yëgal neen ne mbir mi du mbiru bëri yàlla yëgal neen ne mbir mi du mbiru arme waaye kóolu tële ak gëm yàlla tabaraka wa taala mu ne leen kam min fi'atin qalila galabat fi'atan kathira bi iznillah allahu maa sabirin ñaata yoon nga gis mbooloo kam min fi'a qalila mbooloo mu néew daa di noot gañe mbooloo mu bëree bëree bëree bëri loolu lan moo ko waral mu ne bi iznillah kon mbir mi ci yàlla la aju yàlla pour nga am confiance mu ne la wallahu ma sabirin badr yéeféer yi ñaata lañ woon bisu badr yéeféer yi ñaata lañ woon jun ah jullit yi ñaata lañ woon comme li ñu wax sànq ñetti téeméer ak fukk ak ñett boobu adat la woon keroog yonent bi daf tàllal loxo di ñaan ba kaala bi wat Abubakar moo jël ci kaala gi delloo ko ci bopp bi ne ko yàlla du naanal du neenal sa ñaan yonent bi lan la doon ñaan yow yàlla mbooloo mu ndaw mi bu ñu leen reyee kenn dootu la jaamu ci kaw suuf ñii rek ñoo fi nekk tey ay jullit ñetti téeméer ak fukk ak ñett waaye mbir mi ndeke mbirum yaqiin la ak kóolute ak gëm sa boroom moo tax yàlla ne leen kam min fi'atin qalila galabat fi'atan kathira bi iznillah wallahu maa sabirin yàlla mi ngi ànd ak ñi muñ gis nga maayatullah maa man as-sabirin tey suñ la ne woon président bi dafa ànd ak yow looy looy sentir gars yi ñun ñu toog fi ci jàkk ci kenn ci ñun tey bu la président bi waxoon man yow laa àndal looy sentir ah da ngay mbég da ngay kontaan da nga naan man dootuma am problème saa yu ma am problème damay woo président rek numéro téléphone ale ne ko président rek ah wala président Amérique bu bees bi bu la waxoon yow laa àndal nag looy sentir ah léegi nag buuru buur yi yàlla mu ne la maa ngi ànd ak yow doo réeg mais ñun suñu problème mooy yàlla daf lay wax dara doo doo ko wóolu nit wax la dara nga wóolu ko nga gëm ko wax naa ko dar samedi ñu yeggee ci ay inna allah ala kulli shay'in qadir yàlla mu ne man lépp laa mën tey benn président ci àdduna bi wala benn roi benn buur su la waxee yow sama xarit nga te xam nga man mën naa lépp loo bëgg dinaa ko def loo yëg ah da ngay yëg ku toll na yàlla ne la inna man mën naa lépp te yow nga gëm ko yàlla mu ne la man mën naa lépp nga gëm yàlla moom bi la ko nit ki waxee rek yow sa da nga ne sa problème yëpp rek la na macha allah terminé président nee na man la àndal kon moo tax Sayyid Hawa di wax ne bu ngeen jàngee alxuraan na ngeen bàyyi xel aaya fu muy jeexee bu baax inna allaha maa sabirin yàlla mi ngi ànd ak ñi muñ lan mooy muñ as-sabr habsu nafs ala ma takrah muñ mooy po poñe bakkan nga poñe sa bopp def loo ko lu mu buggut a def misaal yeewu fajar yeewu fajar dafa neex wala dafa metti yow laay laaj lool yow fajar dafa neex wala dafa metti daa metti xam nga ci dara yow miy jàng buñ la yowee 4 heures du matin day metti surtout mag ñi nga xam ne dañuy dang dang yëndoo liggéey nga jekki ba 5 heures du matin nga dégg jàkka ji nodd ah sa ñaari bakkan yi nafsun ammaara ak nafsun mutmainna bakkan bu baax bi mu ne la jógal julli beneen mbir la tëddal ba ci kanam da ngaa sonn sa yaram bi day métti xoola ban heure nga tëdd dem yaa ngi tëdd 2 heures nelawoo lu dul 3 heures 4 heures rek kii taxaw fii di nodd di yuuxu moom 10 heures la tëdd moom daa nelaw ba doyal yow xaaral tuuti waay nga nekk foofu ci lal bi di xëccoo naa jóg du ma jóg naa jóg xaar ma nelaw tuuti ah ba ci nga dégg ñu salaatu nag léegi xiyaamu layli bi weesu na moom par perte nga xiyaamoo dañ nga foofu di bërëngu nelawoo jógoo yaa ngi bërëngu ci kaw lal ba xiyaamu layli bi dem na léegi la mooy problème iblis ñëw taxaw nag di bëre yow pour doo julli ji fajar doo am salaatul jamaa waaw naa tëdd deux minutes salaatu nañ naa xaar tuuti naa xaar ba ñu kàbbar ma daw nga jékki-jékki di ñu ne assalaamu aleykum nga ne waaw comme gars yi julli nañ ba pare ama tëdd ba huit heures rek benn yoon moo tax muñ il faut nga muñ jaamu yàlla jaamu yàlla dafa métti il faut nga muñ ko ku muñul ci ñun jaamu yàlla doo dem waaye ñu ne jaamu yàlla muñ ñetti façon la muñ jaamu yàlla muñ mooy yàlla muñ problème yi ak jafe-jafe yi ak feebar yi ñett yi mooy muñ soo ko muñul soo ko deful doo jaamu yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu ne daawud alayhi salaatu wasalaam yaqtulu jaalut daawuda yonent la yàlla dimbali na ko mu war a rey buur bu kàccoore bi tudd jaalut nan la ko yàlla defee mooy gaa yi dañ doon xeexi waltaqa aljaysaani ñaari armée yi daal di daje jaysul iman ala rasihi taalut wa jaysu turyaan ala rasihi jaalut ñaari groupe la groupe bu baax bi ak groupe bu bon bi groupe bu baax bi mooy ñi ànd ak taalut groupe bu bon bi mooy ñi ànd ak jaalut groupe bu baax bi ñoom ñoo gëm yàlla groupe bu bon bi ñoom ñoo bi yàlla bindee àdduna ak léegi nag ñaari groupe yi rek ñoo fi am ñaari équipe rek ñoo am ci àdduna ñaari équipe hmm? terrain football bi ñaari équipe rek ñoo ci nekk équipe bu yàlla ak équipe bu seytaane ñaari équipe jaysul iman ak jaysul kufr ah ñi gëm yàlla ak ñi weddi yàlla àdduna bi ba mu commencé ba léegi foofu lañ rek la lii rek la amul ñett amul ñeent gëm wala weddi imma shakiran wa imma fura ñaar yooyu rek ñoo fi nekk léegi nag chaque jour yow da nga war a fexe nga bokk ci jaysul iman nga bokk ci ñi gëm yàlla tabaraka wa taala nga moytandiku bokk ci ñi weddi yàlla ndax ñi weddi yàlla ëllëg seen mujj ñëpp xam nañ ko yàlla da leen di duma kenn amu ci sikk ku weddi yàlla ëllëg yàlla dina la duma sunu borom subhanahu wa taala mu ne falamma kaana min alfia alqalila almumina allati sabata maa talut illa an tawajjahu bidduai ila fatiri lsamawati wal ard talibina minhu an yurzaqahum sabra walsabat wannasr ala al aada bi ñaari bi ñaari équipe yi jàkkaarloo ñaari groupe yi ñaari mbooloo yi ñi gëm yàlla nekk ndeyjoor ñi weddi yàlla nekk càmmoñ gis nga chaque jour ku gëm yàlla na bàyyi xel lenn ci dundam mu xam ne moom mënul dara armée yi lu mu bari bari bari bari sa mbooloo mi lu mu bari bari bari bari ngànnaay yi nga yoru yu mu sophistiqué sophistiqué am na lenn luy des yow jullit loo xam ne balaa ngay def dara loolu nga war a njëkk a def loo am kàttan loo am moyen loo am xam-xam loo mën yépp bàyyil xel ne benn mbir mu sa kanam chaque jour boo waree def dara loolu nga war a njëkkee loolu mooy lan mooy ñaan yàlla chaque jour loo war a def balaa ngay def ñaanal yàlla gis nga ñee bi ñu jàkkaarloo ak mbooloo mu bari mi dañoo teg seeni arme ci suuf ñu yëg ne yàlla rek moo fi nekk ñu tàllal yàlla seen loxo lan lañ ko ñaan yàlla moo nu ko nettali borom bi nee na fa lamma barazu li jaalut wa junuudi qaalu rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi kafirin ba ñu jàkkaarloowee ñaari mbooloo yi jàkkaarloo lan lañ wax qaalu rabbana ñu ne yow sunu borom gis nga gis nga yëg nañ ne am nañ imaan yëg nañ ne am na borom bu fi nekk bu leen moom ñu woo ko waaw Moussa ba mu jàqee bi gaa yi tiitee lan la wax inna ma'i rabbi yonent yàlla Muhammad ba mu duggee ci xeer bi Abubakar tiit ne ko danañ ñu gis lan la ko yàlla wax yonent bi wax inna allaha maana yàlla mu ngi ànd ak ñun loolu moo tax yàlla sénégalais yi ni ñuy def yàlla mooy dem ba jeex misaal misaal feebar ñu daw ci ñu daw ci buxaaba yi ba seen alal jeex mënuñ dara ñu ne yóbbu leen hôpital ñu dem hôpital ba hôpital médecin yi ñu ne mënuñ ci dara ñu ne ah léegi nag yàllaa fi des nag yàllaa fi des loolu mooy mooy sunu mbir ñun waa Sénégal yàllaa fi des balaa ñuy dem ci yàlla day fekk dem nañ ba tële même sax kuy wut liggéey ah da ngay dem ci buxaaba yi kër kër yi sangu dem ci géej gi dugg ci garab yi fu nekk dugg ci xamb yi kër kër yi ba sonn ba nga xam ne léegi mënatoo xam nga ne amoo nga ne ah yàllaa fi des ñaanal leen ma nag léegi yàllaa fi des fekk yow bi nga jógee yàlla moo fi njëkkoon te yàlla moom moo fi mujj bi nga jógee di def dara boroo def dara lu dul nga ñaan sa boroom sooy tukki booy tabax booy jënd waruwaay booy jënd suuf kër sa mboolem dund lépp loo war a def jiitalal du'a ad du'a huwa al ibada ad du'a silahul mu'min ad du'a muqul ibada ñaata hadis la yonent bi wax ñaan ñaan ñaan leen yàlla gis nga ñi moo tax bañ jàkkaarloo ak mbooloo mi li ñu njëkk a def mooy delloo mbir mi ci seen boroom tàllal yàlla seen loxo ñu ñaan ko yàlla na leen wërsëgal ñu mën a muñ walal ñaar la leen yàlla adressé woon ak ñoom la ñu def benn la sànq aaya bi ñu romb aaya bi fu mu mujjee woon inna allah yàlla ne leen maa ngi ànd ak ñi muñ ba ñu yëgee ne yàlla mi ngi ànd ak muñ moo tax bañ koy ñaan lan lañ ko wax afriq alayna sabran waay waay waay waay muñ googu nga yore sotti ñu ko afriq mooy sottil sottil muñ ci sunu kaw bul ci yem wa sabbit aqdaamana sunu tànk yi yal na nga ko dëgëral mu kole ci suuf si mu bañ a buuse mooy lan pour ñu bañ a ñu bañ a daw ndax soldaar buy xeex di daw ñu dàq la ngay daw mais dañ lay gañe ñaar ñaar la ñu ñaan yàlla insisté ci mooy yow yàlla yàlla nga sotti waame muñ sunu kaw beneen bi mooy sunu tànk yi yàlla na nga ko dëgëral wansurna ala alqawmi alkafirin yàlla na ñu dimbali nag ci kaw nit ñi nga xam ne ay yéeféer lañ yàlla na ñu dimbali ñetti mbir la ñu ñaan gaay ñaan nañ yàlla seen boroom subhanahu wa taala mu dimbali leen ñu muñ mbokk yi moo tax saxaaba yi bi ñuy ñaan yàlla bi ñuy wax yonent bi nañ dem xeexi nañ xeexi nañ xeexi lan la leen yonent yàlla Muhammad wax sallallahu al afia ñaan leen yàlla jàmm gis ngeen xeex bëri na kuy wax xeex nañ xeex nañ xeex xeex daa métti xëy na boo toogee nii sa yaram tàng mën ngaa wax nañ xeex waaye boo demee nga jël ngànnaay nga gis sa benn morom boo dendal ñu jékki-jékki bopp bi naaw ah deret ji tuuru nga jékki-jékki gis keneen fële say àndandoo foo tourné gis deret su boobaa da ngay xam ne def lu métti la moo tax ci islaam xeex moo mujj ci lépp xeex mooy mujj ci islaam jihaad mooy li mujj ndax dafa métti te du lu islaam jiital ci ay mbiram moo tax baat bi njëkk a wàcc alxuraan waxul xeexal waxul forceel waxu ko utal alal dafa ne ko jàngal iqra daawud alayhi salaam ak ñi mu àndaloon te mooy taalut ba ñu jàkkaarloog jaalut ak ay soldaaram dékk nañ seen boroom ay loxo ne ko sottil ci ñun muñ sotti ñu yow yàlla muñ waaye dëgëral suñu tànk waaye yow yàlla ñoo ngi lay ñaan yàlla nag nu dimbali ba ñu gañe ñi nga xam ne ay yéeféer lañ wa huna baraza jalut almaliki zalim wa huwa yalbasu dur'ahu alhadidiya wa ma'ahu silahahu wa bada'a yatlubu minhu an yaxruju lahu rajulan yubaarizuhu mbokk yi fii la buur bu saay-saay bu kàccoore bi tudd jaaluut nekk buur bu tooñ ponkal la woon gaa yi nee nañ armée bi yëpp moo leen sut dafa ngande ngande goo xam ne fu mu dëgg tànk bi nit mën na fa dugg làqatu su la bëggoon génnee du loxo bi du mën a dugg ci pax bi ndax nu mu ngandee mu sol mbubu koŋam xam ngeen mbubu koŋ ah xam nga mbubu koŋ mooy yére bi nga xam ne boo ko solee buñ la dóoree jaasi jaasi bi du dugg yére bi moo lay protéger day am mbax ne buñ la ko dóoree ci bopp mbax ne bi mooy protéger sa bopp bi ba jaas ji du ko xar buñ la jamee xeej yére bi mooy protéger xeej bi ba du dugg buñ la dóoree jaas yére bi moo koy protéger loolu la sol bi mu ko solee mu jël jaas ji nga xam ne moom jaase jaas yu ngand la woon boo xamante ne ay nit ñoo ko attan te moom moo koy téye benn loxo mu tàmbali ne loolu xale yi di wax nañ leen ëffal nañ ko ëffal ak ay nit ëffal leen ma yéen bu fekkee wul ngeen seen bopp génne leen ay nit ngeen ëffal ma ak ñoom loolu la booy naan nañ leen ruumal ngay gis ay booy di xeex nekk mbooloo ñu ne nañ leen ruumal gars yi daal def benn cercle bàyyi deux ci digg bi buur bi loolu la wax nañ ko nañ ko ko defal mu ne bi mu waxee loolu comme ponkal la ak baat bu ngand bi mu ne fa xaafa kullul junud alladina kaanu maa taalut ndeysaan armée bi nga xam ne moo àndoon ak taalut nga xam ne ñoom ñooy ñu ndaw ñi ñooy ñetti téeméeri ak fukk ak ñett bi waa ji yuuxoo ak baat bu ngand bi ñu xool ko yoolaay beeg doole jebeeg ngandaay bi mu ne hal min mubaaris kan mooy génn maak moom ñu jàkkaarloo ñu ne fa xaafa jamiul junud armée bi yëpp tiit ragal kenn ñemewul génn kenn ñemewul génn allahu akbar ndax lan kenn ku nekk moo ngi xool ne kii ngandaay bii kii kii de ko génn dootoo ñibbi moo tax mu ne armée bi ñëpp a ragal kenn ñemewul génn kon mbokk yi fii la ñuy yem insha allah ba mercredi bi di ñëwaat ñu eggali insha allah dars bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu amin yàkku